jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su mbokk yi gis ngeen euh, dimanche bi weesu euh, Jax production moo ñu woo fëra ca terrain gaal gi mise bi nekkoon deux millions cinq cent mu nekkoon lutte traditionnelle boo xamante ni keroog ku maroon làmb yaakaar naa ni màndi nga làmb euh, ñuy félicité bu baax général Malika ci ndam loolu nga xamante ni am na ko tey ñu ñëw fii ci arène ki ñu fi woo di eh, Ndiaye production ci njiital ga di Fallou Ndiaye euh, nga xamante ni vraiment 4 millions la teg 4 million nag bu ko Fallou Ndiaye tegee dana doon loo xamante ne mbër yëpp dinañ wàcc si champion yi dinañ wàcc si di ngeen gis làmb di ngeen gis cosaan moment bi wax ak yow ay xale ñu ngi dugg si ci làmb ji sëñ Basirou dañuy ànd dugg ci biir xool ambiance xool cosaan xool bak xool culture xool lépp loo xamante ni dafa bokk ci làmb daa bokk ci décorer làmb kaañ dugg sëñ Bas. ñun la ak yéen Wassare Lamb kaay kaay kaay kaay. am baax na ndaysaan Adama yàlla grand cadreur cadreur ginnaaw suba Adama képp kuy ka ko féete kaw loolu maa ko wax barki yonent bi ndaysaan Cheikh Tidiane jëli na tànk ay naataangoo lañ waaye gën xam ni champion cër la am ci làmb moom si mooy jo fu làmb fay daanu na wala déet daanuwul Cheikh Tidiane ñaa daanu la daanuwul père ah kon sànq moom daanoon la yaakaar bu rukur duggee day am kay saate boobu xam ko def jërëjëf Père Fallou Père Fallou maa lay jàpp ndeysaan alagul naam ezongo mafikane coy yona da hoyta ku kasiri alagul naam Sonko maa fi fay la. ñu ngi lay fay bu baax jëli. waaw yaa bu baax. daa bi ni mooy sa deuxième sortie ci compétition. waaw loolu la yàlla def waaw. waaw keroog terrain gaal gi bi nga ñëwee. da ngaa ñàkk. mais dellu si waat nga ngémbuwaat wane ni compétition la seen métier la dugg si waat nga tey. waaw gis nga nit ki li muy ci lay ñàkk rek. Oh. yal na yàlla ànd ak ñun. yal na yàlla ànd ñun. yal na yàlla ànd ak ñun waaw yal na ma sama liggéeyu nday wallu ci bari Seydina Mohamed. loolu rek ngay wax xale baa ngi noonu ndeysaan ma nga noonu moom Serigne Ndiaye numéro 2 xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb ndeysaan Fass am nañ ci moom yaakaar Medina am nañ ci moom yaakaar Colobane am nañ ci ñaa moom yaakaar ñaari tali benn tali xale la boo xamante ni làmb da koy jox cër gisuñu ko bii passé waaye gisaat nañ ko est-ce que ku ko nuyu di la fay Serigne Ndiaye nuyu naa la fay ndeysaan waxul lamba gi noonu Serigne Ndiaye nuyu naa la daa ko nuyuwaat de ba tey ndeysaan maam góor gi Ndiaye doon nay Moustapha Gueye doon moom Serigne Ndiaye numéro 2 xale la boo xamante ne gis nga ko la ma la doon wax ci Cheikh Tidiane Niang moom laa wax ci moom lamb duñu ko fooyee déedéet sport la waaye bu ñu ñëwee dañuy wane seen bopp dañ fi ne rek mooy jëmbat na fulla ak fayda sëñ Basiru kaay le premier combat am moo leen wan moom Doudou Sané ma ngay bàkk ndeysaan Lam Toora lay laaleel Lam Toora ay waay xoolal na muy njaabee waaye lamba rafet waaye lamba rafet oh ah. ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan Lam Tooro ndeysaan Lam Tooro ak Doudou Sané Doudou Sané daw na jël jàpp na da daan daan daan daan na ko premier combat Doudou Sané nee na doole moom Doudou ndeysaan ndeysaan Doudou Sané nee na dama am doole ndeysaan oh lii rafet na ay waay ah ndeysaan lii rafet na ndeysaan lii rafet na ñaq waaw waaw du réer boo ñaqee dangay am ndam boo ñaqul dangay am ndam te nga am ndam moo gën ndeysaan xool ah Doudou Sané ndeysaan Paskaay dina la daan wala déedéet ndeysaan ñaari mbër yi jàppante nañ ndeysaan caxabal bañ na fàqet day bañ fu muy mujj bu sulu wala déet ndengeej na ko ba ma manuel bi hey caaka fay kenn du moom ci manuel ndeysaan mbay lum ngay dégg noonu ci bàkk bay waaye moomoo ngom ndeysaan moo yor bàkk ba mbayang moo yor way wa <laughs> déggal ma mbayang lum lu muy way ndeysaan ndeysaan ndeysaan ñaari mbër yaa ngay bëre ba tey fu muy mujj ndeysaan ñaari mbër yaa ngay bëre ba tey jàpp na lu mu nar yëkkati dóor ci suuf da moom Petit Lo moom ngeen jàkkaar lool jarbaatu Modou Lo la le roi des arènes doomu parcelle bi ndeysaan fàqat nañ Petit dana ñàkkam déet na tànk ba daa mën a bëre xale bi daa mën a bëre ndeysaan daa mën a bëre daa mën a bëre moom Petit Lo ndeysaan ñu ngay ba tey ndeysaan xale yaa ngi noonu ndeysaan mbokk yi ñu leen di fàttali ba tey ñu ngi fii ci arène nationale ndeysaan Ndiaye production moo ñu fi woo mise bi 4 millions la ci njiital ba Fallou Ndiaye la ànd ceeg ay xale yoo xamante ne xale yu am jom lañ combat Petit Lo baa ngi noonu ma ngay leewaatoo fàqat na mu bañ lu mu nar daa nar a bëre ña ngay joxante ñoom ñaar Petit Lo nañ tànk ba mu bañ ma ngay xeex ak moom ci bëre <laughs> ndeysaan ndax làmb daa bëri ñaari façon xeex bëre simple faw ngay ngàddante di fëggante bopp loolay xeex bu dee bëre dóor la ko ci dóor ma ah ñaar daan non non Petit Lo daanu. combat xale yi namoon combat yëpp ñu ngi ci làmb ji. ah waaw waaw Ada Fass moo ngem boo lu xonq li ka muy bë muy bëreel moom xanaa dama koy tuddee kan laa war a tuddee waay ci sa kan laa gën a yab waay. kenn xamul déedéet daa am ay tur ko bëgg jox Ada ngi noonu ndeysaan moo ngem boo xonq li waaye ma ngay bëreeg mat mbër mu mat mbër moo ngem boo ngem lu vert ñu ngi ci compétition bi ba tey ndeysaan plaqué nañ ko mbot fooram la mbot na mbot na mbot na la Ada mbot fooram la da koo mën. Idaali maa lay nuyu. Baye Jili maa lay nuyu di nuyu borom gaal gi. di am mbégte ci wasaare daal. di nuyu waa Sénégal gépp di wax ne ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi. di sant sunu ñaari waajur di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke mu yàgg fi de wër di ko ñaanal Baye Jili borom léegi léegi di ko ñaanal Cheikh Ndigal Sène. ñooñu dañ may ñaanal ñoom laay ubbee ñoom laay tëjee. ñu bari ñu ngi doon waaj jàkkaarloo yi nga xamante ni Idaali tëgg na ko rawatina tournoi bu am solo bi nga xamante ni organisé ko ko grand combat ci diggante dab daan ak Mbaye Tine Junior combat boobu signature bi ñu ngi ko jàpp le 10 lan nga ciy waajal. waaw ñu ngi ci woo suñu mbokk bool bool yëpp di ci woo waa lamb daal di wax ne fii lañ koy defee incha allah sur boobu Fallou Ndiaye di may sant Fallou Ndiaye nag cesse bi def ndax su tegee lambam ne ma ñëwal boobu ngay def noonu ñëwal ñu def ko tirage bi fii loolu mbégte ko def di ci woo ñëpp diggante Yankaaw ak Albarka Kayre ak Kaaw Gourdin am na yeneen xale yu ci na ci bëre na ca daj ak malam ñaane war na jëriñ ak Guèye bu Faas ñu ci woo mbokk suñu mbokk bool bool yëpp ñu gën ñoo ñaanal gàttanal nu daal ba liñ bëgg nu àggale ko daal loolu laay ñaan borom tur gi mais yi rafet na de yow kër ga si ko léegi léegi léegi nii waaw waaw waaye ñëw Fallou Ndiaye bi foo masque bi dañ masque bi masque bi ma lay nuyuwaat bu baax di la féliciter ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne def nga ko mais def waaw def nañ ko ah, keroog ñu gis la Gambie journée bi nga fa tëgg mu nekk journée bu am solo tey nga ñëwaat dakaar organiser waat fi lu mel ni teg 4 millions tegal ko xale yi mu mel ni Fallou nekk nga ci bëre dóor bi waaye bëre simple bi am na loo ci bëgg a def. waa mais xam nga àdduna boo ci nekkee boo yokku rek da ngay wàññi dañu amatuñu droit def erreur ci làmb amatuñu droit vraiment deltu ginnaaw dañoo war a dem ci kanam yàlla dogal nag yéen ngeen ne fi seeni moom ne fi ku mel ni Basirou wóor na yàlla dama jàpp ne bu journée mel nii moom bokk nañu ñi tax ndax suñuy yëf yemalee ko yëfi kenn di ñu jàppale di ñu taxaw kon nañ koy sant di ko gërëm moom Basirou. xam naa yaa baax rek sëñ bëggul ku koy wax. mais barke sëñ Touba suñu xol daa sedd ci moom fees. da dina xam ne suñu xol sedd na ci moom ndax am nañ mbégte bu baax ci moom di sant am fax axlu lamb yëpp ndax xam nga li yombul. arène nationale li ñuy bi ci kaw bariwul. kon tey bu ñu nee ba fii fees ak li ñu wax corona bi distance yi gars yi bañ ne il faut ñu toog kon nga xam ne vraiment am na cër bu ñu làmb jox kon duñ def lu delloo wax leen ko sant leen gërëm leen am mbégte bu baax ci amateur yëpp di sant du jaay jéego bu baax di sant bépp amateur muy grand Gora Ndoye képp ku fi ñëw rek am nañ mbégte jéego sant nañ la bu baax a baax. lutte avec frappe ak lutte simple ban moo ci gën a yomb organiser ak ban moo ci gën a métti. non lutte avec lutte simple moo gën ndax lutte simple mise bi ren ngay teg. soo déggee mise bi après li ci des ay promotion ngay def def xool noo def ba jaay mais bu dee nit avec xolam nag boo xoolee ay vingt litres lay nekk ku ci nekk bëgg a saafonteeg moom ku ci nekk bëgg a wax ak moom day compliqué mais lii bu dee loolu la yow bu dee lii la yow mbëri amu leen benn wax ñoom day dem CNC bindu yow nga dem CNC yóbbu sa mise lam ñi ngeen daje ñoom ñuy bëre yow nga ne sa organisation kon yaakaar naa lii moo gën a yomb moo gën a neex a organiser. mu mel ni le 10 euh, fii ci arène nationale lan nga teg. waa le 10 dañoo yokk mise bi def ko 5 millions comme tey 4 millions lañ defoon dañoo ubbi rek gis nañ ne tey euh, neex na macha allah ndax amateurs yi si lañu. bëri la cay siiw bu matee ñeenti mbër mbaa fukki mbër ca lay yem njool la boo xamante ni eh, mu ngi def ay preuve ci làmb de ñiy seetaan li traditionnel xam nañ ko ndeysaan gis nga Libidoor a ngi noonu arbitre bi siflé na moom Libidoor moo ngemb lu ñuul li Toubacouta moo ngemb lu ñuul li moom it jàkkaarloog adversaire am li bu door a ngi noonu ndeysaan ndeysaan waaw waaw ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ndeysaan ñu nga noonu ndeysaan Franc arbitre bi sifflé jël nañ la fi nga yegg sori na Ngor Ndangaan la Ngor Ndangaan daan na Toubacouta Ngor Ndangaan daan daan na Toubacouta arbitre bi sifflé na ndeysaan Caatu Waalo ak Franc ndeysaan Franc ndeysaan gis ngeen ndeysaan libidoor a ngi noonu ndeysaan libidoor a ngi noonu ndeysaan Toubacouta lamb nii la ndeysaan Franc a ngi noonu moo caatu waalo caatu waalo Franc def na la fooram da biit jël na tànk ba caatu waalo bañ na Franc jël na tànk ba jël na tànk ba fu muy mujj Caatu bañ na Caatu Waalo Franc ndeysaan fàqat na ko mu bañ Franc Caatu Waalo ña ngay bëree wër na ko ndomba wër na ko ndomba Caatu Waalo Franc wër bañ na Caatu bañ na ndeysaan Caatu Waalo champion la waaye doole doole doole doole doole Franc daan na Franc daan na Caatu Waalo ay ndeysaan ba tey ñu ngi fële Libidor fi mu jàpp baax na Libidor fi mu jàpp baax na Libidor fi mu jàpp baax na Libidor fi mu jàpp baax na Libidor fi mu jàpp baax na li mu jàpp baax na li mu jàpp baax na li mu doon jàpp baax na ndeysaan li mu jàpp baax na ndeysaan Caatu Waalo moom daa siisu mbër mu daana bañ a génn am na lu ko métti ndeysaan mu daana na du génn am na lu ko metti ndeysaan Libidor fi mu jàpp baax na Libidor fi mu jàpp baax na arbitre bi àtte na ndeysaan Libidor ndeysaan Libidor ak Blindé ñu ngi noonu ñoom ñaar <laughs> combat ba bu neex ñoom ñaar Ndeysaan Blindé ak Libidor Ndeysaan Libidor ak Blindé ñu ngay bëre ay caatu waalo ngir yàlla génn lamb ci lii simple la fola nga ne fi jooy ne doo génn ay caatu waalo lii mbaa jàmm la ay yàlla mi ñu sàkk lii mbaa jàmm la ci caatu waalo Ndeysaan Libidor arbitre bi si loona Serigne Ndiaye numéro 2 Boy Faye Serigne Ndiaye jël na tànk ba wala Boy Faye jël na tànk ba Serigne Ndiaye bañ Serigne Ndiaye Boy Faye jàppante ñoom ñaar Serigne Ndiaye Boy Faye biij na ko mu bañ Boy Faye daa mën bëre Serigne Ndiaye Boy Faye ñu ngay leewaatoo jëli na tànk ba Serigne Ndiaye bañ na est doole feeñul Boy Faye taxabal na ko mu bañ est-ce que doole du feeñ est-ce que doole du feeñ jàppante la ñoom ñaar Boy Faye téye na ci loxo ba xoolal lo xoolal loxo xale Boy Faye fi mu téye ci Serigne Ndiaye mënul rëcc ndeysaan xool leen ñoom ñaar ñaari xale lañ ñoo xamante ne ay champion lañ ñoom ñaar ku daan mën ngaa jël compétition bi ndax ñoom ñaar ñëpp ci favori yi lañ bokk muy Serigne Ndiaye numéro 2. moom Boy Faye ndeysaan Boy Faye bul foowee bëre bi ndeysaan bee libidoor ndeysaan ak Blindé ñoom ñaar ba tey ñu ngi ci combat bi wàll bi Boy Faye ak Serigne Ndiaye numéro 2 ndeysaan Serigne Ndiaye Boy Faye Libidor Blindé Boy Faye ngi yóotu tànk bi Boy Faye Serigne Ndiaye ndeysaan Serigne Ndiaye Boy Faye noonu Serigne Ndiaye de bu faas ndeysaan ñu naan ko Moussa Niafat moog Boy Faye jëli na tànk ba Boy bañ na ñoom ñaar dina yomb Boy Faye biij na Serigne Ndiaye bañ na Boy Faye nga koy lu mu nar moom Boy Faye Ada Boy Faye plaqué na ko Cheikh Tidiane Niang bañ na Cheikh Tidiane na ko daan na daan na Cheikh Tidiane Niang Ada Boy Faye daan na Cheikh Tidiane ndeysaan daan na ko Boy Faye Cheikh Serigne Ndiaye daan na Boy Faye ndeysaan yéen ñaar ñëpp vous n'a pas démérité muy Cheikh Tidiane ñaa muy Boy Faye lamba gi noonu décourage Alu Ndiaye leen boole du yomb 4 millions la leen tegal ku ci ne daxa bu ko yóbbu ko ëffal mais pour promoteur lu tax mu mën a ëffalaate waa dina dina du yomb ci ñoom ñaar ñëpp Blindé Blindé la buur barki yonent bi Blindé Blindé la <laughs> cey Mouhamadou Fadal sama waa ji Fadal bu Dakar Buzz mooy yëgale takk ñaareelam loolu la diis la koy def moom Fadal bu Dakar Buzz sooy ba yàlla ci yàlla def barke Fadal ak lii ba wax bi waxe yow Cheikh Fadal moo dundee sa takk bi la diis xalaat ñaan yàlla téyel bu sa lambiñ wi ndax da ngay yokkee wax da ngay ruuxalay wax man takku ba takkuluwu ma. man jàmm laa woote. xëy na boo ko buñ ko lay wàcc man dafa sama kër. ah man jàmm bëgg. ñu ngi ci combat bi ba dina ko wër ndomba. da koy daan da koy daan est que jël amul. daan na ko samp ba wala déet. jël la amagul ba léegi Fadel. kat app am na. kat app dina doxul jàmm. Libidor daan na ko. ah donc Paul doxul jàmm. kii xew na ci. muy Cheikh Tidiane Niang. ku ko xamoon ci compétition xam ni day yegg final wala demi-finale deuxième combat am ci la daanu booy fay ku ko xam xam champion ndaanaan gi mu doon ci làmb moom it deuxième combat am daf cee daanu mu doon loo xamante ni ñoom ñaar seen ñaari sortie yëpp fii ci Dakar dañu koo perte Boy fay bi passé ki ko élimine mooy général Malika général Malika moomu ñëwul tey tey ki nga éliminé waat Boy Faye mooy Serigne Ndiaye numéro 2. Euh, ti Cheikh Tidiane weesu bii weesu ki ko daanoon mooy Caaka Fay moo ko éliminé Caaka Fay boobu éliminé woon Cheikh Tidiane Niang tey ñëwul aussi moo it mu nga ca leneen Cheikh Tidiane Niang tey ci compétition bi Ada Boy Bawol moo ko éliminé. l'enfant de Diof yor mooy bëre Doudou Sané buur ndaysaan xale lañ ndaysaan buur kenn du yow. bëgg naa ndaysaan buur kenn du boobu. ndeysaan ndeysaan dégg ngeen li nga xamante ni moom la Doudou Sané daan na aw waaw ma ngay bàkk ma ngay daan di fecc nee na da koy teg ci loxoom tey Doudou Sané lan la nar Ada Fass jël na ko daan na Ada Fass daan na Ada Fass daan na nee ko da bëri wax kaay nee ko kaay waaye lii ay neexal làmb Ada Boy Baol nee na Doudou bëri wax nee ko kaay da bëri wax Ada Boy Baol ko kaay Ada Boy ak Doudou Sané ndeysaan xasante nañ nee na ponkali la soxla nee na ñii dañoo tuuti ndeysaan lan moo xew yaa Doudou Sané ay góor nekkuñ ci làmb ji xanaa lan la muy wax daf ma daan ñëwoon beneen la ma mos a daan mi def poids la du ma ko weddi mos a ma daan Demba Diop mais ni du fen mos na ma daan beneen dama koy nangul mais bu mu wax leneen. daa mel ne bëggoo ngeen ñu tirage da ngaa bëgg a am ak moom direct. déggoo ma bu ko neexee dama ko teree neex dama ko xamal wax ji wax fay góor ñoo fi nekk. ah <laughs> loolu. ngi noonu. waa Doudou. Doudou. Doudou yaak Ada Boy Baol nu mu demee Doudou Sané ma ngay takk ay jaajam waaw da nga takk ay jaajam moom Doudou Sané boo ko gisee ni mu ñëwee nga xam ne tey daa décidé nee na da koy teg ci loxo bi xaw ma lan la Doudou di teg ci loxo bi waaye ma ngay defaat ci ay déeba déebam ma ngay takk lii nag décor la ci làmb ndeysaan ñee takk nga takk mu dëgër ndeysaan danga koy may ba mu noppi daal di wax ak yow lii mooy làmb ndeysaan Doudou Sané saan doomu Joof Yoor bi moom Doudou Sané saan gis nga ma ngay dugal sengoor ba xoolal ma lii ci làmb la bokk am na lu mu téye ci loxo bi xoolal ni mu koy dugalee cey làmb làmba garaaw làmba yéeme waaye làmba neex billaay duudu duudu yaag aada booy boobu lu xew booy boobu daa nga mooy daa bay wax eng waajo sifflé ndaysaan kooku daanu na arbitre bi na talfa ak tas càmmoñ tas yaakaar moo ngemboo ngemb loolu lu zone li am lu bula li ña ngay jàppante Talfa moom day jëli tànk Talfa tas yaakaar ndeysaan ñoom ñaara ngi noonu tas fàqat na ko mu bañ tas yaakaar ak Talfa ñaari xale fàqat na ko tas yaakaar bul fàtte bii passé bi ngay daanu tànk la daan dañoo jël sa tànk yegg la fu sori est-ce que ki xam nga ko Talfa tas yaakaar ñoom ñaara ngi noonu ñaari tas tas talf taf ak tas Talfa ak tas yaakaar jàppante ñoom ñaar tas yaakaar ak Talfa ndeysaan Talfa ak tas yaakaar tas yaakaar ak talfa tas yaakaar ak talfa tas yaakaar ak talfa ndeysaan tas yaakaar ak talfa ñu ngi jàppante ba tey ñoom ñaar dara xewagul ñu ngay jàppante am na luy waaj a xew Talfa ak Tas Yaakaar ndeysaan làmba ngi noonu ndeysaan tas yaakaar talfa tas a ngi koy fàqat ña ngay jaayante doole tas jàpp na ko fi mu jàpp baax na waaye talfa fa mu jàpp baax na zongale ma ngay xeeñ zongale ma ngay xeeñ zongale ngay xeeñ waaw waaw caxabal déedéet zongale ngay xeeñ tas yaakaar jël na mu bañ ña ngay demante mbot daan na ko tas yaakaar daan na ko tas yaakaar daan na ko tas yaakaar daan na ko tas yaakaar daan na wala déet arbitre bi kaay leen kaay leen fëggaat suuf si ay woon bëriwaat ñoom ñaar dara leeragul tas yaakaar ak talfa tas yaakaar ak talfa ñu nga jàppante ndaysaan dégg ngeen Abdourahmane Assef ak Jacques

ndaysaan ba tey diggante Kaaw Gourdin ak Mor Kankang ndaysaan ñu ngi ca ba tey ndaysaan ndaysaan kii day day neexal wër na ko ndomba mbaa di ci génn mbaa di nga ci génn ngóor ñaax génn na ca ngóor ñaax génn na ca ngóor ñaax génn na ca ngóor ñaax génn na ca arbitre bi sifflé na Kaaw Gourdin Mor Kang Kang Kaaw Gourdin na ko jëli na ko dina ko daan wala déet daan nga laay laay la Mor Kang Kang ndeysaan ngóor ñaax jeex na arbitre ba àtte na ku daan Doudou Sané jël sabar ba Doudou Sané ngoy na ci sabar ba mbaa bu ko sambee Ada Boy Baol du dem wala déet noonu di bëree Kaaw Gourdin moom Mor Kankang Mor Kankang Kaaw Gourdin Mor Kankang Kaaw Gourdin Mor Kankang Kaaw Gourdin ndeysaan wàllu wee am na ku jàpp day daan wala déet ñu nga jàppante ñoom ñaar Kaawu Gourdin Mor Kang Kang ndeysaan Kaawu fàqat na ko mu bañ ngi noonu doxaat beneen combat ndeysaan Ngor Ndangaan ak Libidor Ngor Ndangaan léegi moo éliminé Toubacouta mu ngi noonu moog Libidor Ngor Ndangaan Libidor ndeysaan ñu ngi noonu am na ku muy bëreel fële ndeysaan am na ku muy bëreel Libidor Ngor Ndangaan Kaaw Gourdin ak Mor Kankan Kaaw Gourdin Mor Kankan Kaaw Gourdin teq na ko Mor bañ combat bi du mën a yomb ñoom ñaar Kaaw Gourdin fa nga ko sori na Mor bañ na jargat ndalu nañ yéeg ba ca kaw wàccaat ndaysaan wàllu bee gis ngeen Franc ma nga noonu ndaysaan Ngor Ndangaan ak Libidoor ñu ngi noonu ñoom ñaar ba tey ñoom it ndaysaan actuellement nag compétition bi mu ngi dem ndaysaan Franc ngay jëli mu bañ saa yiñ boole ci diggi géew ba lañ fay boole day riis Franc ngi jëli Franc ngi jëli mu ngi koy ngàdd Franc koy ngàdd arbitre bi àtte na Ngor Ndangaan Ngor Ndangaan ndeysaan waaye Franc muy bëreel mën na bëree trop macha allah ndax ma ngay wone boppam Adama ni mu tudd kii Franc di bëreel <laughs> rek ko buy diine oh, xaw ma ko waaye xaw ma ko. ndeysaan nee na xamu ko. ña ngay gàddante ñoom ñaar. arbitre bi àtte na. avertissement deux. boo amaatee trois ñàkk sa combat. ndeysaan. ndeysaan. ndeysaan. waaye Ngor Ndangaan ak Libidor ba tey ñu ngi ci combat bi. Ngor Ndangaan ak Libidor. ak Libidor. Franc ma nga noonu. Ngor Ndangaan la la Libidor. ñoo nga Franc kan. déedéet Ndangaan a ngi la moom Libidor ñooy bëri. Franc ki muy bëreel Ndangaan Libidor. ndeysaan franc Lion nga xamante ne xam nañ ko ci li traditionnel nee na ma la nee na ma franc ki muy bëreel xaw ma ko te la Lion ku ko dégg xam ne mooy li traditionnel ndeysaan arbitre bi waat na Ngor Ndangaan Libidoor ndeysaan wàllu bee aada booy bawol ak Serigne Ndiaye numéro 2 bu faas ña ngay lewaatoo ñoom ñaar Serigne Ndiaye moo ngemboo ngemb lu vert li Boy Baol moo génne Franc comme doon bële disqualifié nañ ko Franc am na ndam li Ada Boy Baol ak Franc Ada Boy Baol ak Serigne ñu ngi noonu Ada Boy Baol Ada Boy Baol ak Serigne Ndiaye numéro 2 Mor Ndangaan Ngor Ndangaan am na benn avertissement ñaar ci kaw Libidor Ngor Ndangaan Kaaw Gourdin daan na Ndeysaan Ngor Ndangaan ak Libidor arbitre bi àtt na ndeysaan Serigne Ndiaye 2 ak Ada Boy Baol ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar Ada Boy Baol technicien la moo éliminé Cheikh Tidiane ñaar léegi moom Ada Boy Baol journée jax bi passé ñëwul woon tay mooy première sortie moom Ada Boy Baol waaye Serigne Ndiaye la am Ada Boy Baol ak Serigne ñu ngi jàppante wala ña ngay leewaatoo ñoom ñaar dara xewagul Ada Boy Baol Serigne Ndiaye ndeysaan Ada Boy Baol ak Serigne Ndiaye Serigne na ko ci kaw dóor ci suuf na gaaw nee na gaaw moom Serigne Ndiaye numéro 2 nee dama am doole nee dama liggéey nee na dama am ngemb nee dama am xaalis ndeysaan ndeysaan làmb ngoog xeeñ ci làmb ji am na luy xeeñ moom Serigne Ndiaye numéro 2 paxam bii maa ko xam muy bëreg li bi door paa bi ñëwoon na ba muy bëreg li bi door stade Jom Iba Mar paa bii maa ko xam ndeysaan Mbaye Bass ba ngay def di jëli Serigne Ndiaye interview fekk seen kër yu dogg yaasa bu neex mas nekk nga ci bay a dee. man mii Serigne Ndiaye bu li mu door ba ci neel añu doog ak paa bee. ndeysaan ndeysaan ñu ngi noonu. Ngor Ndangaan ak Libidor ñoo noonu ñoom ñaar Ngor Ndangaan Libidor Ngor Ndangaan Libidor Ngor Ndangaan Libidor Ngor Ndangaan Ngor Ndangaan Libidor ñu ngi jàppante Ndeysaan Ngor Ndangaan Ngor Ndangaan Ndeysaan ma nga noonu Ndeysaan Libidor ak Ngor Ndangaan Doudou Sané ku am fële cey làmb ji Ngor Ndangaan arbitre bi sifflé na Fils de Batlen ak X9 wàllu bee yaa ngi am Ngor Ndangaan ak Libidor wàllu bee yaa nga am Doudou Sané ndeysaan ak gonek parcelle bi ndeysaan X9 daw na jëli ko Fils bañ na ma nga taxaw X9 ndeysaan Doudou Sané nga noonu moom it mu ngi dugg ci poids yi ndànk ndànk moom Doudou Sané ndeysaan ngóor ndàngaan ak libidoor ña nga noonu ngóor ndàngaan ak libidoor ngóor ndàngaan ak libidoor Ngor Langaar ak Libidor ndeysaan ña nga ca combat bi ba tey Ngor Ndangaar ak Libidor combat bi metti na ci ci door waaye Ngor Ndangaan mi ndaanaan la bàyyi leen ko xel ci làmb ndeysaan fils de Batlen ak Tmax daan na x9 wala jël na ko fi ko jàpp baax na Fils de Batlen fa mu jàpp rëcc na ndeysaan ndeysaan X9 ak Fils de Batlen x bu am doole waay moto bu mag X9 moto boo xam ne mën naa jël 47 personnes man Basirou aadama Kaggu Mbeen ñaari kilifa yi ñëpp X9 mën na leen a jël ndaysaan ndaysaan Doudou Sané am na adversaire fële de arbitre bi atte na avertissement pour Doudou Sané ndaysaan ña ngay bëree Ngor Ndangaan ak Libidor ndaysaan kon ak parcelle bi ak Doudou Sané Doudou Sané ndengeñ na Doudou Sané ndengeñ na lu mu nar Doudou Sané da koy plaqué wala déet daan na ko Doudou saane daan na ko Doudou Sané na nee na man la nee na dama am doole Doudou Sané nee na dama am doole kepp na ko kepp na ko daan na ko wala déet hee war nañ dombali bi door daan nañ ko ndeysaan oh ndangaan daan na daan na Libidor Fils de Batlen daan na daan na x Ndeysaan combat yaa ngi noonu Moussa Faye Tony Tony nag daa mën a waaye Moussa champion la ndaanaan la sànq daan na jël boo xamante ni Tony boo ko mayee mu dugg tuuti nga am mbégteel ci xale bi de Moussa Faye ak Tony Moussa Faye ak Tony Moussa Faye ak Tony Moussa Faye ak Tony Moussa Faye ak Tony Moussa Faye ak Tony arbitre bi atte na Moussa Faye ak Tony Moussa Faye ak Tony Ndeysaan ak Tony ba tey ñu ngi ci Tony Moussa Faye ko mu bañ mbot na ko mu bañ Moussa Faye ak Tony jàppante ne ñoom ñaari xale yi ba tey arbitre bi àtt ngi waaj a sifflé de Ngor Ndangaan ak Franc Franc ngeen jàkkaar lool Ngor Ndangaan moo leen won ginnaaw ñu ngay leewaatoo ñoom ñaar Ngor Ndangaan nag champion la ndax sànq moo éliminé ki nga xamante ni mooy Libidor Franc ci compétition bi ba tey mu ngi bëre di daan ay champion di daan ay ndaanaan ma nga noonu Ngor Ndangaan ak Franc jàppante nañ jàppante nañ ñoom ñaar Franc daw na jëli ko Ngor Ndangaan Franc jël na tànk ba dina ko daanam déet dina ko daan daan na Franc daan ngóor Ngor Ndangaan est-ce que nekkul daa sonn ndeysaan xoolal tegante dënd bi nappante yàgg na ci làmb waaye daa mel ni ay naataangoo lañ de neex na de Serigne Ndiaye Doudou Sané am lu mu ko wax waxut de wane na ginnaaw nee na kaay leen Serigne Ndiaye am na lu diw ci kanam gi man de Serigne Ndiaye bii dama koo ragal. kenn xamul lu mbëri di diw seen kanam yi Serigne Ndiaye Doudou Sané ña ngay waaj. tas yaakaar dem na demi-finale. Tony dem na demi des ak combat ngóor ñaax. kon tey poids léger bi mel ne ay ndaanaan ñoo nar a génn sëñ Basir. waaw waaw ay ndaanaan a nar a génn parce que Tony ki mu éliminé en quart de finale Moussa Faye ñëpp xam nañ ko mu nekk équipe nationale. drapeau chef de l'état aussi gis nañ chaque année participation bu am solo bi muy def tas yaakaar aussi gis nañ ko bu doon compétir ci poids lourd bi li mu doon indi ak euh, difficulté yi mu doon indil ay magam ngóor ñaax moom kenn dootu ko présenter kenn parce que moom aussi élément wala équipe nationale la nekk en même temps aussi ci équipe bu Fatick bi la bokk Ka Gourdin bii moom gis nañu euh, tey parcours am vraiment depuis commencement ba léegi nii ay suites yu spectaculaire moom lay daan donc euh, carré d'as bi foofu ci demi finale bi ay combat yu baax lay nekk. jërëjëf sëñ Basirou combat bu baax la combat bu neex la ci quart de finale. Anami il est trop confiant. <laughs> ndeysaan tas yaakaar fañ la yegg sori na tas daan na wala déet tas yaakaar daan na arbitre ba atte na ndeysaan tas yaakaar daan na. nee na ponkali la soxla sama xarit ba kenn du boobu ndeysaan ñu ngi ci komba bi ba tey Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané mbokk yi ñu ngi fii ci arène nationale Fallou Ndiaye moo ñu fi woo ndeysaan Ndiaye production teg mise bi 4 millions xale yee ngi ci quart de bi fi mu toll nii lañu ñu dox ci diggante Doudou Sané ak Serigne Ndiaye numéro 2 bu Fass ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition yi ba tey cey lamb ña nga ca ba tey ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan maa ngay laal caméra <laughs> ñoom ñaar a ngi noonu ba tey di xoolante ci bët la ma doon wax rek ñoom ñaar ñii ku ci daan mën ngaa finaalu Doudou Sané Serigne Ndiaye numéro 2 bu Fass sànq jaayante nañ doole waaye dara sottiwut alors nañu xool xam fu ñuy mujj ñoom ñaar Doudou Sané ndeysaan Doudou Sané Serigne Ndiaye numéro 2 ndeysaan Serigne Ndiaye ndengeñ na Doudou ndeysaan Adama fils de Batlen ku am foofu ndeysaan Adama nee na ma biram bisin waaye Adama yàlla sa jaamu yàgg Adama yàlla sa cadreur ndeysaan biram bisin ak fils de Batlen ña nga noonu jàkkaarloo ñoom ñaar ña ngay lewaatoo ndeysaan Doudou Sané Serigne Ndiaye numéro 2 fi mu toll ni ku daan dem demi-finale ndeysaan Doudou Sané Serigne Ndiaye numéro 2 fils de Badlen Siki ak ndeysaan xaritu Adama tudd nee na Biram Mbissine ndeysaan Adama Biram Mbissine fa xam nañ ko mu bañ fils de Badlen ak Biram Mbissine arbitre bi sifflé waat na Doudou Sané ak Serigne Ndiaye numéro 2. Ndeysaan Doudou Sané Serigne Ndiaye numero 2. Ndeysaan Biram Bisim ak Doudou Sané ñoom ñaar ku ne avertissement Serigne Ndiaye am na benn Doudou Sané am na benn ndeysaan ñu moo xees Serigne Ndiaye moo ñuul ñuul a ñuul a ñuul a ñuul ba di kukk moom Serigne Ndiaye. Doudou jël na tànk ba mu bañ bañ na bañ na Serigne Ndiaye sol na ko biij na ko mu bañ luy xew biij na ko takk na Serigne Ndiaye takk na ko gësëm na ko Doudou Sané mbot na ko Serigne Ndiaye lu mu nar lu xew lu xew gësamaat na ko moom Serigne Ndiaye ndeysaan takk ba baax na mba dara rëcc. duudu bañ na rëcc na duudu saane rëcc na stade ba yuuxu na ay amateur yi lu ruumal nag yéen ci doy takk na ko lu mu nar takk na ko da koy daan wala deet daanu ko duudu saane bañ na ee eh, duudu saane mii duudu saane mii duudu saane mii am na luñ ko dee bu dee kàttan am na ko bu dee bëre mën na ko waaye Serigne Ndiaye lu mu lal Doudou Sané laal na ko nañ leen xool fu ñuy mujj nañ leen xool fu ñuy mujj arbitre bi àtte na arbitre bi àtte na public ba yuuxu na bilaay yéen a mën a ëffal ëffal rek yéen a ma ci doy ndeysaan biram bisin fis bat leen tas yaakaar fee am na ku mu daan dem fan final wala demi final ñoom la ay daa mel ni ñu ngi ci daan dem demi final ci quart de finale yi la ñu toll ndeysaan Biram Bisin ak fils de Badlen Fils de Batler lu muy yëy si ngoom lay yëy mbala gàllaaj lay yëy wala lu muy yëy ndeysaan Adami il est trop confiant <laughs> ndeysaan tas yaakaar fañ la yegg sori na fañ la yegg sori na tas daan na wala déet tas yaakaar daan na arbitre ba atte na ndeysaan tas yaakaar daan na nee na ponkal yi laa soxla combat bi arbitre bi sifflé na Franc ak Serigne Ndiaye numéro 2 Serigne Ndiaye moo ngemboo ngemb lu vert li Franc moom ngeen jàkkaar lool saison bi passé avant Covid bi ñoom ñaar mos na ñoo ñoom ñaar ku daan sa morom ku nekk daan sa morom muy 1-1 Serigne ak Franc waaye fii ci arène nationale Franc moo fi mujjee am ndam ci kaw Serigne Ndiaye ñu dellu si waat xool ñoom ñaar seen ñaareel daje fii ci arène national fu muy mujjee dox ci diggante Serigne Ndiaye numéro 2 bu Faas ak Emine François Gomis mu njàmbaar Wrestling Academy ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo di xoolante ci bët Serigne Ndiaye ak Franc Franc jàpp na ci bopp bi ndeysaan moo la woon compétition bi ala dawme na ndax ñoom ñaar ku daan tas yaakaar ngay am final ndeysaan dox ci diggante Emine François Gomis ak ki nga xamante ni mooy Serigne Ndiaye numéro 2 Franc gàdd na ko jàpp na galaaj ngay dagg Franc ngay dagg galaaj yi sànni ma ngay dagg galaaj di sànni ndeysaan Franc dagg na galaaj yi Serigne sànni Serigne Ndiaye taxaw na jodd Serigne ka taxawaay bi baax na ndeysaan njool ak ndaama ñoom ñaar ndaama saa yu bëreeg njool da nga naan njool mi sàmmal say tànk ndax lu mu guddi guddi ci sa tànk yi la jëm ñu ngi laale ñoom ñaar Serigne Franc fàq na ko Serigne bañ na Franc solaat na sànni lu ñu nar ñoom ñaar Serigne Ndiaye Franc bëtt na mbaadu da koy daan dina ko wër ndomba Franc wër na ko wër na ko ndomba génn na la ilaha illallah laa ilaaha illallah oh Franc jàppaat du ci génn Serigne Ndiaye doo ci génn Franc daan na Serigne Ndiaye Franc daan na ko Franc daan na ko arbitre bi sifflé ak Kaaw Gourdin Kaaw Gourdin moo leen féete càmmoñ Moussa Mbagnick moo leen féete ndeyjoor ndeysaan ñu ngi ci finalu compétition bi final lese bi fii ci arène nationale journée Ndiaye production njiital ba di Fallou Ndiaye mise bi moo nekkoon 4 millions lii mooy fois finale poids lese bi ndeysaan ndeysaan ñu ngi ci batay tey ñoom ñaari mbër yi ñu ngay lewaatoo ndeysaan ndeysaan Kaaw Gourdin ak Moussa Mbagnick ñoom ñaari ngi noonu Kaaw Gourdin Moussa Mbagnick Kaaw Gourdin Moussa Mbagnick Kaaw Gourdin Moussa Mbagne Kaaw jël na ko dóor na ko tànk Moussa bañ na Kaaw jàpp na fi mu jàpp baax na wala déet musa rëcc na Kaaw Gourdin Moussa Mbagne ñoom ñaar ñu ngi ci combat bi ba tey daan na ko Kaaw jël na final ba dàq na ñëpp ne leen ñibbi Kaaw Gourdin dàq na ñëpp ne leen ñibbi Kaaw Gourdin jël na final bi ci kaw Moussa Mbagnick ndeysaan mu des ci final luur bi kaw tey koo bëreel ci compétition bi joxoñ nga ko baaraam ni ko demal ñibbi ba jël final parce que loolu mooy yoon dañoo war a dem ñibbi fii ak Dalifor sorewul fii ak sorewul te suñu père tombé daa lu mu def ci làmb te ñu ay doomam dañ ko war a def noonu la demee waa Dalifor ñoo leen di gërëm di gërëm ñëpp wasaare daf ma war a seet si gars yi war a ñëw am ci lu ñuy waaj muy kalaf dinañ war a ñëw ñu wan leen waa Dalifor waa Dalifor fooraay. waaw waaw ñëw. noonu arbitre bi sifflé na Emine Gomis ak Mor Asedem euh, Matar Diouf moo koy arbitré ndeysaan Dioufeen bi arbitre bi ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo mbokk yi ñu ngi ci samedi 27 mars 2020 wala 2021 arène nationale Fallou Ndiaye moo ñu fi woo Ndiaye production. mise bi 4 millions la ñaari xale yi ñoo bëre wane njàmbaar ba finalu Mor Assa dem daw na jëli ko Franc jël na ko sa waay takk ko day daanu daanu na daanu na daanu na daanu na daanu bi Franc jël na bi Franc jël na bi Franc jël ñiy seetaan wasaare lamb ñu leen di jaajëfalaat bu baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak wasaare lamb di leen jaajëfalaat encore une fois fii ci arène nationale journée bi nga xamante ni Fallou Ndiaye moo ko tëggoon Ndiaye production mu doxoon ci final bi diggante émine François Gomis ak Mor Assadem muy tas yaakaar ak Franc Franc daan na tas yaakaar jël li nga xamante ne mooy final bi ci kaw Serigne Ndiaye numéro 2 ci kaw Doudou ci kaw Boy Faye ci kaw seex Tidiane ñaa ci kaw Ada Boy Bawol ci kaw yeneen daanaan kon ñuy félicité waat bu baax a baax Franc ci ndam lu rëy li nga xamante ni jot na ko am mbokk yi ñu leen di jaajëfal di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb ay ca muy gaaw